ragalul ëllëg toogul tey toogul ëllëg ñetti mbir rekk mën a am benn bal perdu rey ma ma dem fegook sama wasila cheikh islaam islam cheikh ibrahim Niass mu nga xam ni mooy mooy xar dënd góor yi dugal ci maarifa nga doon arif billaahi wala ma peggoog góor gi nga xam ne dama ko bëgg ndax li mu bëgg ak yonent bi muy cheikh ahmadou bamba daal di peggoog Cheikh Ndoumane Seck bi nga xam ni moom la moom la Cheikh Saad bu ni xut bu rabbaan la soit balpe du rey ma ma fekk ñooñu wala boog ñu tëj ma kaso ba damm sa caabi yi walla boog ma xeex ba fa sama doole yam rek pour jéem a soppi li nga xam ne jàpp naa nit dafa war a deñ ci réew mi muy kumba am ndey ak kumba amul ndey muy jaay doole muy maa tay bi nekk ci réew mi ak def lu la neex bi nekk ci réew mi maa ngi leen di sant di leen gërëm.